fédération sénégalaise de football ci wàccaay match retour bi nga xamante ne aller bi ñàkk nañ ko ba noppi ci wàllum ticket bi mbooloo mi takku na ndax fi dañ fiy jaay tike et tamit loo ñu mën a leeralal ci mbir yi naka la tëddee. waaw pour wax dëgg-dëgg nag fii nag jaayu ticket amu fi dañoo ñëw fii amoon problème pour ticket. léegi nag bu ñu ñëwee fii ñu wax ak Lamotte moo joloon si ñaar suñuy gars yi fii mu yóbbu leen fële léegi bu ñu demee foofu noonu ñu am lu ñu tënkoo ak fan ngeen dem euh, mooy ñoom fu ñu nekk xaw ma nag exactement fan la léegi bu ñu demee foofu am ñu si si ay kaddu yoo xam ne moom la ñu tënkoo kaddu yi moo nekkoon lan mooy lan bu ñu ñëwee comme yaa yaa yaa ay nit yu bëri ñoo fi nekk y' a tellement de monde que bu ñu ñëwee di jaay ticket fi dina dina am leneen lu ñu indi léegi dafa ne ñu defar benn liste <coughs> benn ngeen baal ma benn genre liste léegi liste boobu noonu moom la ñuy defar <coughs> ñi ñu si list boobu noonu ñu xool ku nekk sa tur ak sa sant ak sa sant ak bi fa nekk léegi nag dañuy dem foofu nag bu ñu demee bu ñu xoolee nombre par exemple bu ñu nekkee nombre de cent ñu jox leen cent ñu ñëw après ñu woo ku nekk ñu jox la sa ticket waaw loolu la fi demee. mbooloo mi tàkku na ndax amul ay jafe-jafe ay complications parce que mel na ni dégg naa ñeen ñi di ñaxtu ci procédure bi naka ngeen ko organiser. waaw xam nga rek fi lépp loo gis rek mooy loolu lépp Sénégal moom lépp problème la. balaa ñu laa dégg rek nga coow nga def nii nga kaas nii ñun nit ñi mën laa dégg gis nga bu ñëwee fii ay magum jëmm a fi nekk da nga nooy wax ak ñoom rek nee leen lii ak lii moo fi am te lii ak lii la ñuy doxal buñ doxalul lii nii du dem comprendre ñoom nag dañu am compréhension ñu daal lay déglu ñu ne comme ah ñun kat ay mag lañ waaw nañ ko def si cadre njëkk ak teraanga rek xam nga lépp teraanga la ñu def ko njëkk ak teraanga am nooy wax ak ñoom rek laaj bu mujj mooy wàllum jaay ticket tamit am na ñoo xam ne ne ni prix yi dañuy bàyyi ba match bi jeg wala a jaar ndax loolu yëpp lan ngeen ñu ci mën a leeralal ko. waaw loolu lu ñu ci mooy xam nga ñun Sénégal ñun ñun. par exemple ticket 3000 yi am ñoo am na ñoo koy jaayee 20 000 ah. francs donc loolu yéen lan ngeen ci a leeral. ñun li ci mën a daal mooy du ko naxarlu li ci njëkk mooy man maa ngi koy naxarlu au plus profond de moi de moi-même parce que dafa nekk loo xam ñun. yéen prix fédération ngeen di jaay ñun jaayu ñu ñun dañoo defar liste di ko yóbbu foofu noon après moom bu demee day jox kook noonu ticket après moom bu ko bu nekkee jaay na ko bu jox na ko mu jox ko xaalis après ku nekk boo ñëwee boo jël sa ticket da ngay joxe ñu jox la sa ticket mais ñun jaay ñu mais ñii di jaayaat na affaire yoon dañoo wax ñun ñun ay patriote lañu yaa ngi dégg ñun Sénégal daaf ñu ñu jaral kon ñun duñ jël ay ticket 3000 euh, francs di ko jël ay 10 000 francs te ñi dañoo bëgg a dem dañoo bëgg a dem stade te daa am stade bi instant bi nii nit ñi dañoo soxla mbooloo dañoo ñëpp Sénégal yëpp la soxla ñun dañoo bëgg dem Qatar xam nga kon duñ fi jël ay ticket 3000 francs di ko jaay 10 000 wala yu di ko jaay di ko jaay ñu dañuy faciliter nit ñi rek pour ñu mën dem stade voilà. copain na nga def. waaw ça va sant yàlla tudd. man maa ngi tudd Mbacke Ndoye sama Sénégal bu naas bi. merci ñu fekk fii ci fédération Sénégal lan moo la fi indi. waaw man tey damaa ñëwoon pour jënd ticket. waaw di wax nag fédération prochainement ticket ñuy xool nuñ koy jaayee quoi. lan moo xew ba nga wax lu parce que système bi ñu jël moo baaxul te ñu jël ko jël ko ci yóbbu ko si point xaw ma jottali xaw ma. ak Auchan yeeg yooyu noonu stade stade yi ñoo ngi fi stade yi bu ñu ko jëloon yóbbu ko benn Alassane Djigo stade Amadou Barry stade yooyu noonu yëpp ñoo ngi fi ñu jël ko yoobu ko fa waaw boobaa nit ñi dinañ xam dinañ mën a wu mais tey ñu ñëw ay point jottali wala nga ñëw fii nii ñu naan la ticket yi ñoom nga fi rànk jafe-jafe yu nga yore 3000 ba nga jënd ticket kenn jënd ay ticketam yu bëri téye ci saagam ñëw ticket bi 3000 francs mu nga la koy jaayee 8000 francs da dund loolu tey loolu lañ dund bëri na fi fii ñu fi nekk ñoo xam ay ticket yu ñuy jaay lañ yor ticket 3000 ñu jaayee ko 8000 wala ticket 10000 euh, ñu jaayee ko 20000 francs xam nga loolu jaarul te imaginel jour bi da war a dem stade passe aller retour sa lekk ñëwagul ak yooyu yëpp fédération tey bu ñëwee fii ñoom war nañoo mën a jox information yu leer mais waru ñuy ñëw ñu ñuy ko quoi wala ñu bàyyi yenn yi yaa mu gën a xam. jaajëf copain jaajëf jaajëf te. Euh, noo tudd. Birame Diop. waaw ah, Birame euh, ñu fekk la fi fédération sénégalaise de football mu mel nii da ngeen di pour jënd ay ticket lu jëm ci match retour bi alors naka ngeen dundee wàccaay bi ak ticket yi ngeen fi jënd. waaw métti rek wax dëgg fa yàlla métti parce que ñu ngi waroon liggéey ne bàyyi suñu liggéey bàyyi suñu lépp mun ko jaral Sénégal kon ñun kese la quoi mais boobu ba léegi ñu ngi fi te am na ñoo xam ne dégg ñu ngi fi bëgg ticket mënu ko am. ngeen ñëwee lan lañ wax. bu ñu ñëwee ay ticket baa kenn xamul depuis fajar ba léegi ñoo ngi toog fi di rang. xam nga fi ñëw man maa ngi fi ñëw ay huit heures mais bu mu fi ñëw am na ñoo xam ne nee ma depuis sept heures ba léegi ñoo ngi fi toog da jënd pour dem seetaani match wala da ngay jënd pour jaayaat. damay dem pour dem seetaani bi moom moo tax ñëw mais doo pour jaayaat. na lañ ko jënd. waaw loolu moom loolu moom man li ma si di ko wax mooy sport bi ñi parce que ticket bi 3000 francs laa dégg ñu ne koy jaayee 10 000 bu 10 000 francs bi ma dégg xam nga loolu c'est tout ñun ay Sénégal loolu. wax dëgg yàlla amuñu loolu loolu moom ñoo ngi koy ñaawlu te ñoo ngi wax ministre sport fekk moo ngi déglu la si jug waaw loolu du yoon parce que ñun Sénégal loolu nanu liggéey pour ñun te bañ a liggéey suñu kaw te Sénégal loolu moo fi am quoi gars yi dañuy liggéey suñu kaw quoi mais liggéeyuñu pour ñun. match bi mujj bi aller bi ñàkk ngeen ko 1-0 retour bi naka ngeen ko waaji ak lan ngeen di ñaax suñu gaynde ngir am ndam ngir mën a dem ci Qatar ci mondial. waaw mais di woo supporter yi ñoom ñëpp ñu ñëw parce que ñun ñoo war a gagné match bi ñun ñoo ko war a gagné quoi may woo supporter sénégalais lépp na nu ñëw ñu dajale Sénégal xam nga ñëpp ñëw lépp def ko ci préparé quoi bañ a yàq bañ a def dara ñu def pour ñun quoi yàlla mel ñu ndam bon li li jàll nag nanu xam ni sport la jàll na ñàkk nañu contre Égypte mais ñun nañu fexe sunu retour ñu fexe gagné trois 0 ñu gagné si jàmm Sénégal dem ci kalam incha allah.